yakana sama domji, ji ak sama jarbat bi liñ wax ah. Ah, sama domji, ji ak sama jarbat bi liñ wax yakana do doon sëkk du ci man dolli dara waye nak serigne ma Samba ni dafa am lu lu ngeen di wax lu arab yi wax dañ ni la taqul asli wa fasli abadan innama aslul fata ma maa xat asal mm-hmm. nit ki du jégué ni nan sama bokk bax nañ légui samay doom baax nañ man ma ni ci diggante bi rek baaxuma ni ci diggante bi mu mel ni wax nañ ñi nga xam ne moo jàll muy bokki euh, euh, sëriñ Massamba Kanni li tàmbale ci yonante ba ci sëriñ Massamba Kanni wax nañ ko man nag fi ma bëgg a dugg moo xaw a gën a xat ndax dama bëgg a tàmbale sëriñ Massamba Kanni ba ci sët yi sët yi nag am na lu ma leen dénk ndax gannaaw seen maam am na lu mu def kon daa am dénkaane bu gàtt boo xam ne dana ñëw ci bu ma jeexalee naa leen ah sëñ bi waxal baagal maa ngi wax bokk. waaw ki gën la bàjjan ki gën la jarbaat gën la bàjjan nday baay ci àdduna te gën la fuuf doomi nijaay sëñ Masamba Kanni moo gën li ku dul moom ki gën la jarbaat gën la bàjjan nday baay ci àdduna te gën la fuuf doomi nijaay mooy sëñ Masamba yi ngir ku dul moom moom moo la gën yii li waral kenn du moom sëriñ bi sooy bay baay ba soxna Kanni mbakke di yaayam moom yëmul ak kenn bàjjan ba soxna jaara doomi bàjjanam sëngum bi def yëpp muy seexul xadim jarbaan ya soxna may wa soxna xadija seex abdu xaadir Mbàkke sun ja te soxna may sëriñ bi ne cirub góor la fàgg woon ci moom ba tax mu mën góor ngir gëfi jóor rekk la jëf ba jóge fi man alxuraan taalif lu takk ba ko fi soxna xadéet ku nekk xam ni mu fonke ak bokk nag li mu ci jëf ñu fekkee cheikh moustapha mbake magam ju bax ja jëf ju rafet jëmu ci jëf ci wop ja da bàyyi won kërëm ga dem to da bàyyi won kërëm ga rek dem toxu di topoto jëmum ja rek ba tooyee fa yalla dogal mo jitu far cheikh moustapha ay fan yu neew kaana xuluxaa safa cheikh abdou khadir ay mbiram nit jant la leere nañ ñi soppe yépp a sant soxna aminta ba jani mouride jërul di wax mbiram ndé borna nopi ma wax digënté ma sëriñ bi ñaari yëf mu doy sëkk moom lii mu def kenn du ko def sëriñ bu mag bi mas na ko woo benn bis aminta looy faggu ci fii ak booba bis ni ma Massamba Kanni ami positif ñoom ñëpp nañu am positif mu ne ko man fàgguma lenn lu si jëmm ji ndax ku fa amul lu si jëmm ji ëllëg dana ko rëccu moo tax sëriñ mag bi mas na ko woo benn bis aminta looy fàggu ci fii ak booba bis mu mu daal koy mu daal ni koy mbàkki fàgguma cafee ak file lu dul sa jëmm ji sëñ bi ne bis ci ko am lu man dana ko sànni jaaxle wéeru leen ci man yaqoodu lii wala yaqoodu min nii ilaa li man situ bi isnin min nii aminte yéen nu ngeen di def ak fere yi yéene ci seen wanag yi nag ci kër yi sëñ Tuubaa ko seen fere yi ne ci wanag yi nu ngeen def ak ñoom sooy son aminte ni ko bu ñu liggéeyal nag bu ñu lay liggéeyal nag nu ànd koog yow ngir xam ne mbàkke yow sa pay gi dana woom mu ne ko xaakasa aminta noonu la sunu boroom li ma ma may lu bari la waaye ba fii mu nekk nii mayuguma fay ku liggéeyul ku ko wax de tooñ na ma malaaka yi fay buñ dikkee ñu doon liggéey képp la ñuy fay sonn leen ci seen liggéey soxna aminte lii la xam teel a liggéey moo tax njabootam gi amul kenn ku géey sëriñ ma sàmba kii di ab jigéenam sëriñ bu mag bi moo di doomi bàjjanam maam soxna jërë maam soxna jaara busa moo di bàjjanam Cheikh Abdou Khadir Mbacke mooy jarbaatam ak soxna May ak soxna Xadi baayam sëriñ bu soobe ñii di ñooy cosaanam moo tax mu gën ba noppi gën ay bokk wurusu doon piir la wu leen raxu ko juróom a ngi yoo xam ne yii gën la ko ko du yomb nag xaaral ma ñëw tënkal la ko yooyaa di jarbaat bàjjan ak ndey ak baay ak doomi bàjjan seetlu leen ko gaayi waay moo xala kon ak jébbaloom ci sëñ bi nga xam ne nag bàcce waral pas-pas bi fu mu jubaa sëriñ bi day raam nib liir moos nag sukk ci woomi sëñ bi góor jébbalu naa jébbal si naa saa lépp jébbal si naa la sama bokk yépp sëñ bi ne ko ma Masamba nongol nañ la ko sëriñ sàmba kanni xaacu ñaan ko ni ko sa bopp laa bëggoon nga may ma ci dara lu waaye di am te amul amul dara sëñ bi ne ko ma Masamba kanni xër nga sëriñ Masamba kanni waaye xam nga ku mën a tontu la mu ne ko ku la ñaan ngir yàlla ak yoneen nga may ko la ñaan sëñ bi ne ko may naa la ko loolaa waral nu am imaam ju mat ju kenn werantewul Cheikh Abdou Khadir niru sëñ bi jëmm ja ak sopp yeneen ba niru ko jàmm ja waaye nag euh, li ngeen dikkoon ci mag ñi ngeen waxoon wax ne mag ñi fi nekkoon ak sëñ Tuubaa ak ñi nga xam nekkoon ne yont bi waaye nag kon gannaaw damaa tàmbali sëñ Kani mag ñi nekkoon ak sëñ Tuubaa ak ñi nekk ak sëñ Masamba Kani ak njabootam waxoon ngeen Cheikh Ibra Fall li ngeen ci waxoon léegi nag nu ñaana laale Cheikh Abdourahman mu am fa Ridwaan duggi baabu Ridwaan muy bàyyi si ma sàmba fonkoon ak bokk amoon ak taalube yaroon njabootam ba njabootam niñ jubee kenn du leen dégg ci lenn lenn lu ñu def te duñ ko laal sax fenn ñoom maanu nañ duñ laal fenn ci lu loolu waaye nag Cheikh Ibra Faty ni meloon ci sëñ bi Cheikh Ibra Fall ni mu gëme woon sëriñ bi Ibra ñetteel bi moo di Ibra Faty Diop la ji woon lépp de yàlla na ko góob pas ba pas-pas ba sëñ ma sàmba kenn ni yore woon ak bëgg sëñ Tuubaa nga nam ci xire woon mi ngi ci Ibra Faty Diop mi ngi ci Cheikh Ibra Faty Diop mi le sëriñ ma sàmbaay bàyyi ba Ibrahima doom ji le si sëñ Tuubaa bi jeex ci sëñ bi jox sëñ bi léppam ba mu muróoñ xolam bi sëñ Abdou Faty Diop du yomb maasam ci sopp sëñ Touba nderaw nag maasam sëñ Abdou Faty Diop Cheikh Abdourahmane yàlla na yàlla dolli leen ay kër jinaan yàlla nañu gisee sëriñ Massamba Kanni ñu am fa lool ñeeti kenn kon na ma desaat ci euh, ki nga moo tax a jóg yëf yi muy euh, sëñ Massamba Kanni waaw ma dellusiwaat ci sëñ Massamba Kanni nga xam ne nag moom yëmaloon a kenn sëriñ bi mas naa toog ba guddi gi lëndëm mu woolu kenn nag ci mag ñi nee na dem seetal ma nag fere yi waaja daal di dem seet mag ñi ñëpp nag ku ne mu dem këram sëñ Tuubaa daa toog ba guddi mu ne dama bëgg nga dem xoola ma fere yi kenn ku nekk nga xam ci lu mu nekk waaye ba mu dikkee ah waaw ah, góor ba mu dikkee ci guddi ga ba mu waxee wax ni guddi ga guddi ga lëndëm mu nekk demal seet ma fere ba xam ci luñ nekk ba mu dikkee suñ nettali na lépp luñ nettali nettali na nett na juróom-ñaari nit kenn kon lam nekkee jurul nettali gaa am suñ ma sàmba moo ci te mel na ni gaa yi ngi barkeelu waaw léegi ba mu dikkee leen euh, léegi li ma war def mooy wax na juróom-ñaar yi kenn kon suñ tubaa nekkee waaye mu wax ko la suñ ma sàmba kan nekkee la suñ ma sàmba kan nekkee la ci suñ bi tontu kon juróom-ñaar ña ña ngoon ca dara waaye comme mel na lii mu nekk dara la moo tax mu ne ko ba mu ñëwee mu laaj ko nag nu mu leen fekkee ku ne ci ñoom ak ci ak ci yeen la nekkee mu ne ko sëñ ma samba kanni fekk naa mu laxasaayu bàgg baat ba digg naa mu wax ni jaajëf sëñ ba mbag bi ca kaw ñaqama wër koy toq toqi mel ni taw sëñ bi ni ko loolu lii de foogoon naa ko ma samba positifam ci man xam naa ko foofee mu ne ku fa newul ci ak ronamu nga nekk fay leen waaji naar bi xoromam saa bu masaa toog fi sëñ bi day toog boofu ku wax ca kaw da koy daal koy góof te alxuraan da koo mënoon rafetle ko buy jàng day leer nañ ñi xam-xam am na ko gone yi wax nañ ko kon du jël ba ci dikkaat ko waar woon la nag ku daa waare itam iñaanewul woon kenn kenn ab cëram ne asamaan mooy sëñ bi kuy buux buux loo da koo xamul jërul ji coow ak xuloo soppoon na Seex Ibrahima Fall jàmbaar ja lim xel ci sëñ bee tax bëgg mu xër ca soppoon na soxna Faati Ja li ko waral taalu bi ga daana di ko jëfal sari sarixatom xaqiqatom lépp matom makaarimul axlaaxi piir la ame woon looloo taxoon sëriñ bi jegeel ko boppam di big ci lool mu teewe aw waxtaanam sëñ ma Samba Kaani mas benn bis ba a wute sëñ bi daa waxtaan noppi am waa ji yiwul ne fa daan bi ah loolu de sew na lool sëñ sama dara siwul nañ ma woyul ma Samba Kaani man sama dara siwul ba ñu woyee sëñ ma Samba Kaani mu jaaroon fa mu jaaroon ngeen dégg li sëñ ma Samba Kaani toll wax wala mu tontu nga xam ne bëggut a gaay sëriñ bi mag bi su ma saa di tomb day daal di wax ni wooyu leen ma sàmba ma sàmba kandi sàmba anta ceebo ñooy ñaari sàmba yi sëriñ bi sopp sëriñ ma sàmba kandi mas naa wuute sëriñ bi tomb nag ba noppi woote mbooloo mi toog xamuñu jublu sëñ bi ñoom ñëpp noppi kenn xamul baatin bi am waa ji yëwu keroog ji fa naa sëñ bi loola sew na ngir xamu ko sëriñ bi tontu ko ni saa lenn siwul xanaa ma sàmba kandi tey daa teewul ñu ne ko déedéet mu ne dem leen wooye ko ba mu dikkee sëriñ bi tombaat baamtu ko sëriñ Masamba Kanni yëf ji def ko xaal muy fàtte sa naa Mbàkke lii raw nam xel mu ne ko xaaka saa Masamba tontu ak xambaxin day tas sa mbir du laatu mu ne ko tontu ak xambaxin day tas sa mbir moo tax moo tax bu fas dégg mu ne ah maa ñëw da ngaa ma ñëw moo tax ba bas naa toog fi sëñ bi soj ma sonal ko lool teewul ma ànd ak xel ma ku amoonum xel la woon comme positif li ngeen waxoon waaw ndax am xel mooy lu mel nii sëñ Massamba Gueye dafa toog fi sëñ Touba ba mu toogee ba yàgg mu soj jàpp ko mu tesi ne alhamdulilahi rabil alamina sëñ bi ne ko yarhamukallah bu doon ñun a nekk di wax yooye mu nee na sëñ yàlla ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma arsalnaaka ila rahmatan lil alamina la wax nee nag ma toog fi sëñ Touba sëñ Touba ne yàlla yàlla yërëm te man yërmande yàlla dong laa doon wut mu ne ceel tontuur sëñ bi sëñ bi ne ko waw lu tax yow néewoo yahdikum allah mo ne ko yahdikum ko wax ci yow ku naan ku naan yàlla jubal ko kooku kan nga da daa tàng ci sëñ bi ne ko yalla yalla lu yow nga jubba na yalla na naan yalla jubal la ko wax kon ko xam nga fa ne ko na motax mo ne sëñ ma Samba kan ma dégg motax ba mas naa toog fi sëñ bi soj sonal ko lol teewul ma ànd xelma mu daldi di tisli daldi di alhamdulilah bi mag bi ne ko yarhamukallah mu dal ne amiin sëñ bi mooñ nag sëñ bi mooñ nag wax ko ne lu tax yéex di ku ma waxoo ko mu ne ko mbàkke yow delloo ñaan buur buur nangu yërmande yàlla laa bëggoon nag dong yàlla jubal na la ku naa yéex di ku moo jëme ci yow kookam xelam daa màmm sëriñ ma sàmba kanni mas naa ñëw ba tey sëriñ bi wax ni sàmba indi saak may max li war doomi nijaay ci xeeti may ci doomi bàjjanam ma sàmba daal ni cëy ah Mbàkke yow de yaa di sangub ñëpp ndongolu xeebu laa di sas njaam képp mu ne ko ma sàmbali suñu borom moo ko dogal te kenn du dindi nag lu sunu borom dogal